salaamaaleykum mbokk yi seetaan seen télévision Mbour TV matinal am nañu mbégte contentement di jàkkaarloo yéen ci suba ba tey seen émission Mbour TV matinal luñ koy xëyee di def altine ajjuma di dox ci li nga xam ne nii moom ngeen bëgg di waxtaan ak yéen ci ay thèmes yu am solo waaye ci beneen wet ga tamit xibaar yi nga xam ne dañ koy faral di def bés bu nekk ànd seeg Babacar waaye nag dañuy tàmbali émission bi ànd seeg Aïda Aïda maa ngi lay nuyu. Jibi maa ngi lay fay. téléspectateur Mbour TV matinal maa ngi leen di nuyu mm-hmm. di am contentement di jàkkaarloo waat ak yéen di nuyu kilifa diine kilifa aada fépp fu waay mën ci nekk ma lay fekk fa nga nekk ne la jàpp sama loxo di la nuyu comme ni ñuy nuyoo buur waaye di ñaanal yàlla ñu ci hôpitaux yi yal na yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a dellu ci seen njaboot ñi nga xamante ne caabi da leen a féete ginnaaw yal na yàlla delloo leen ci seen njaboot ba ñu bañ a def leneen lu leen fay dugalaat di ñaanal boroom kër gi yàlla na yokk ba yëpp ko yàlla may ko gudd fan ak wér képp ku nekk ci biir kër gi rek maa ngi lay ñaanal yàlla may la gudd fan ak wér wéral cër wéral liggéey bi di nuyu daal képp koo xam ne yaa ngi seetaan Mbour matinal Mbour TV matinal mu ngi noonu ànd seeg Aïda mu nar a ñëw moom tamit ci rubrique am loo xam ne moo xew ci société bi waaye ci beneen wet ga Babacar lañ ci àndal Babacar ci wàllu xibaar yi Babacar moom nga ñu gis noonu mu taxaw eh, ñu ngi lay nuyu di la ziar Babacar ci émission Mbour TV matinal naka nga xëyee naka nga def. jibi maa ngi lay nuyu di nuyu Aïda di nuyu téléspectateurs yu Mbour TV. jërëjëf Babacar si euh, nuyoo yooyu ak téléspectateurs yi nga xam ne nga leen xibaar yi lan la ak euh, lan lañ koy dooree tey ci bésu talaata ji. xibaar yi li ci gën a fës bokk na ci gannaaw naxar bi ñu am ba Bombardier daanoo amati nañu weneen naxar muy nag Ali Babou moom supporter Bombardier la ñàkk bakkanam gannaaw nag ba Eumeu seen daal di daanee ki nga xamante ne bi mooy B52 bi. lycée Demba Diop bac ba li nga xamante ne bii nag lu toll ci junni candidat ak fanweer ak ñaar ñoo doon amal bi l'examen juróomi téeméer ak fanweer ak ñaar ñoo ca am ndam. leneen muy nag élection présidentielle yi nga xamante ni moom lañ dëgmal ci février 2019 parti socialiste ñoom nag samp nañ seen dënd kañu nag jiital du kenn ku dul jiitu réew mi Macky Sall. tàggat yaram boo mayul Cheikhou Kouyaté dina jóge fa nga xamante ne bii mooy West dem ca Crystal Palace. ji bi loolee moo fi gën a fës ne ay xibaar ci kanam tuuti des na ko yaatal ci xibaar yi di leen jox dig daje yow ak say euh, téléspectateur ëllëg incha allah. voilà Babacar dina ñëwaat euh, après comme ni mu ko waxee ci xibaar yi yaatal ci kanam euh, ci nu mu gën a yaatoo ànd seeg waa rédaction Mbour TV euh, ñu ñëw nag ci waxtaanu waxtaanu émission Mbour TV matinale comme ni ñu koy defee nag ànd seeg Aïda mu indi waxtaanu société li xew ci dëkk bi ah waaye Aïda sa émission cees bi dégg naa gars yi ñu ngi koy ñu ngi koy réclamé waat de ah parce que <laughs> parce que keroog dañoo dem Thiès ji daal di koy wàccee ba mu wàcc ba zéro. waaw ñu dem nag fekk fa ah. boo xamante ne nii kenn dootu ko présenter bi ah, ah, Mandiaye Seck def fa spécial soirée boo xamante ne mm. waa Thiès sax nee nañ doyalul dañoo bëgg ñu ñëwaat lendemain tabaski wala jouru tabaski ah mais en tout cas daal soirée boobu neex na te gars yi ñëpp te te Mandiaye li diggee woon ak waa Thiès def na ko muy ambiance bu mat sëkk la leen show amoon na show bu bu bu spécial daal bu mm. spécial mm. li ma ci gën a neex nag ci soirée bi mooy yaayam dafa toog papaam toog dañoo ñëw dañoo ñëw déedéet kay yaayam toog papaam toog muy woyal askan wi. ndeysaan gis neen show bi ah ngeen def fa yéen tamit show bu nice. ah dem jël gars yi waaw TV Mbour TV show demoon na ñu daal di fay defit Euh, macha allah lu neex a neex parce mhm. askan wi ñoo koy laaj saa su nekk chaque mhm. samedi rek dañuy yàkkam ci Mbour daal di dugg. mais kon di ñëwaat si yeneen programme yoo xamante ni ànd seeg waa Thiès yi nag te moom temps yi moom moom leen jël moom nga jël. sa waa waaw tournée. Ah. boo xam ne spécial la mu ngi dem mu ngi war a dem Louga. Mhm. le 25 août. dama koy topp luga mu ngi war a dem Gambie lendemain tabaski dama koy topp Gambie. Ah. dootuma ko may dara. ànd ak parce que show bi ma gis foofu non waaw sama caméraman bi nga xam ne daf may cadré ba ma kontaan. topp la fépp foo jëm mu topp waaw waaw. <laughs> ngi noonu Aïda tey nga ñëw nag ci li nga xam mooy waxtaanu tey bi lan ngay indil euh, téléspectateur yi. waaw tey nag ji bi dañuy ñëw ci li nga xamante ne nii démb ba léegi. Mm-hmm. moo moo lëmbee réew mi mm-hmm. parce que foogoon naa ne wàññeeku na bu baax. Mm-hmm. mais démb dañu gis ne dañu jàpp 3 ton ak lu teg ci drogue. tey drogue bi nga ñëw. waaw tey moom drogue bi la. 3 mm-hmm. tonnes ji bi. 3 tonnes laa la wax mais loolu imaginer bu duggoon ci dëkk bi ba rëcc. est-ce que ce que est-ce que nekkul woon sax di jéem pexe pour dugal ko ñoom gars dugg jotoon naa dugg sax parce que ñu ko jàppee Thiès. Mm-hmm. benn quartier bu ñu naan Mbour 3. Mm-hmm. fa lañ ko jàppee. Mm-hmm. ñu ngi ci jàpp ñaari góor li ma ci gën a naqari nag mooy jigéen jala. yow gars yi dañuy yëppay dugg ci dorog bi de. gars yi yëpp dugg. yàmbaa beeg te te mention spéciale ci suñu takk der yi. parce ah, que dañoo am waaw parce que nee nañ pendant quatre ans ñu ngi leen di rëbb di leen soog a jàpp démb. ak ñooñu yàkkamtu léegi kooku ku liggéeyul woon est-ce que mën nga leen a jàpp. ñeenti at nga di ko topp nit di ko mm-hmm. gëstu. Mm-hmm. ba am ci lu la leer naññ naññ naññ. dem gis ko nii euh, sama caméraman dina leen jox image yi léegi. ngeen xool ko uh-huh. parce que man affaire bi daf ma choqué. Mm-hmm. naka lañu ñu amee xalaat boobu. lu tolloo 4 3 tonnes 4 tonnes yu manqué. ak lan lañ lan lañ ci jublu. ah fas yàq askan wi rek ak ndaw ñi li nga xamante ne ni seen xalaat yi dafa gàtt. ndeysaan loolu seen seen xam-xam bëriwul. Mm-hmm. ñu fas yéene leen a yàq rek. parce que ñoo xamante ne nii 4 ans dañu dem ba famille bi. Mm-hmm. ci lañ bokk ci liggéey bi. Mm-hmm. parce que ñi ko doon ñi ko fi doon indi. seeni jarbaat ak seeni doom. ñoo ci nekk. donc dafa dem ba mel ni comme comme ñoom dañu fondé woon benn société société boo xamante entreprise boo xamantene ni lu bon lay def mais entreprise bon nag fan la am. non loolu kay moom kenn xamul kenn xamul fu mu jëm. entreprise bon moo tax bu ma déggee ñu naan takk der yi liggéey yu ñu defuñu seen liggéey. Mhm. dañuy wax lu leen neex. dañ koy def ànd seeg passion ñu ngi def seen liggéey ñu ngi def seen liggéey ni mu mhm. waree. Mhm. parce que kuy topp nit pendant quatre ans kooku mu ngi liggéey. kooku bu doon liggéeyul bu ko toppee deux ans. rek day xaar dañuy bàyyi dañuy bàyyi mhm. mais ñu lay topp di la topp yàkkamtiwuñu ci dara mhm. parce que bu ngeen xoolee ci image yi sax mhm. dañu luyee ay apartement yoo xamante ne ni meublé lay doon mais kenn dëkku fa drogue ba lañ fa dëkkal di ko fay chaque fin du mois dëgg la yàmbaa ju tol noonu stratégie denc ak stratégie dugal leen seen xel yi moo leen wër imaginer nga luyee kër appartement entier ki ko luyee sax moom war na am xel ñaar parce que yow doo fa fanaan dëgg la doo fa yendu mm-hmm. de temps en temps nga fay jaar mm-hmm. te boo fa jaaree am na loo fay récupérer rek génn dëgg la mais kooku la luyee sax bu muusee moom moo la war a njëkk a boole ji war na xam war na war na am section ci lañ koy jox mu warul lijjanti parce que dafa war na lijjanti ji bi parce que kër ay bagage yoo boo ko kër boo ko boo nit muy dugg di génn mm. waxuma la sax moom kese mais mu am dugg ak génn désordre yow war ngaa woo ki nga xam ne moom nga luy mm-hmm. parce que boo fa yoree njaboot mën nañ ko yàqaale mën nañu yàqaale li wër koñ bi mm-hmm. parce que imagineel tey nga nekk ci quartier mm-hmm. yor fa drogue bi di ko jaay ku yor 500 sax nga jaay ko kon xanaa léegi yombal nañ ko téeméer nga tux waaye téeméer nga dof fajoo ay million te boo xësee ba dof gëw ma ne nit dina la mën a fajati dof yi ñuy faj mooy ñi nga xamante ne nii dafa ñëw naturellement ci seen bopp mm-hmm. ñooñu boo leen boo leen yóbboo peut-être mën nañ leen a defal traitement mu tane mm-hmm. mais li nga xamante ne yàmbaa moo la ko def te saa boo ko jëlul mu gën a yéeg mais drogue kii la da nga koy tàmm dox bi et puis man jeunes te man gis naa ci dem na gis naa ci sax bu doon yàmbaa bi rek gis naa ci ay comprimés ay comprimés yoo xamante ne nii ci paquet yi la doon bokk mm-hmm. donc xanaa loolu mooy li may dégg ñuy wax pion day log pion day log pion damay dégg nit ñi di ko wax ni xanaa kii daa log tey boo boo boo xam naa ne sa yaram day am cawar da ngay da da ngay mel ni xanaa ko ku drogué wu rek moom drogué yam mm-hmm. ndeysaan ndeysaan gars yi ñoom lu ne lañuy lañuy la ñuy xelaat di dugal ci réew mi quoi mais nag euh, jeunes yi jeunes yi parce que jibi def loolu jibi mm. man ki ma gën a condamné ci yëf yi mooy bi ci bokk mais diil la rek xaalis. diil xaalis mais ci xaalis noo ko amee. Mhm. du noonu de damay dégg ñu naan noo ko amee baax na. Mhm. damay dégg ñu naan xaalis kenn liggéeyatu ko dañ koy lijjanti. dañ koy lijjanti effectivement. <laughs> ñi koy liggéey ñu ngi koy liggéey ba tey de. Mhm. waaye ñi koy lijjanti ñu ngi koy lijjanti. waaye imagineel di lijjanti xaalis sa famille yaakaar ci yow nga leen di jox. nga nekk jigéen. boo xëyee wala loolu loolu fa laa doon bëgg a ñëw. commerçante la. Mhm. damay dugg damay dem di business. Mhm. di jënd di jaay mën nañuy dem sax di jënd ay dàll ay saak di ko ci raxaale di ko mhm. jaay. kan nga koy def kooku tey ana fameem ana démb da leer ne ñoom yendu wuñu ci jàmm. dëgg parce que gàcce weesuwul jigéen bokk ci luñ liggéeyu góor jigéen bokk ci. bëgg xaalis. ak bëgg lu yomb ak man ñàkk xel mhm. weesuwul loolu parce que loo xamante ne nii buñ la ci jàppee lu toll ni kuddu kuddu café di tëdd un an dañ lay téye kay loolu kay amul waaw imaginer la ci jàppee trois tonnes mhm. xanaa kon cinquante ans nga war a tëdd ba à vie <laughs> noonu daal te ñoom dañ koy toujours dañ koy te buñ leen libéré woon tey suba suba suba jibi ñooñu bul xam xaalis la ñaata milliard bul xam ñaata milliard lañ yàq démb. Mm-hmm. ñaata milliard. Mm-hmm. moom moom moo nul. mbalit mu cher gis nga ay de doogu mën a sax parce que l' autre jour Sindia ci àll bi ñu ngi demoon foofu reportage ànd ak préfet. Mm-hmm. ñuy lakk yàmbaa bu am solo toll ci 300 millions ci xayma 300 millions. ñu ngay lakk gis nga biñ ñu tegee reportage bi gars yi di commandé ci suuf yéen a ngi yàq xaalis de ah yéen a ngi mënoon ngeen métier mbay gis nga. <laughs> sénégalais dafa nekk waaw dafa ne dafa nekk loo xamante ni euh, tey jii ku nekk ngi wax naan baaxul baaxul baaxul mais Aïda kuñ ko joxoon ci suuf nga am noo ko diilee parce que dafa nekk marchandise boo xam ne du taxawaalu jibi marchandise boo xam ne du taxawaalu mm-hmm. waaye buñ la jàppee nga weddi sa sëriñ dëgg la dëgg la buñ la jàppee mm-hmm. nga weddi sa sëriñ mm-hmm. imagineel trois tonnes et quelques yooyu bu rëccoon ñaata doomu aadama la mën a lor ci dëkk bi dëgg ñaata nit la mën a yàq mm-hmm. Mm-hmm. quatre ans ñooñu yor drogue boobu di ko jaay di ko dugal ci dëkk bi mm-hmm. di ko jaay imagineel mën naa ne ñu fi dof ñëpp xaaj bi ñoo leen dof lo dëgg la dëgg la loolu ci la bokk surtout jeunes yi jeunes yi parce que parce que seen seen seen esprit moo des parce que ñoom defe nañ ne see bi dëgg boo ci nekkul tuxoo naanoo bokkoo ci see bi dañ naa da lay delloo ci dugal la ci beneen beneen anam fu mu lay delloo si ah gars yi ñu ana fan la lay delloo si. Mhm. nekk ak say moroom ñépp doon nit nga doon dof boo toogee di wax waxi dof. alors loolu c'est c'est autre chose ah dorog te dañ koy paqueté paqueté paqueté paqueté ba nga yaakaar ni ñii ay ay mbasin lañ paqueté. Ah, ay jasner lañ paqueté ndekete yoo te dañuy jël seen temps mhm. dañuy jël seen temps. Mhm. dañ koy paqueté ba nga ba yow boo ko gisee. boo muusul dëgg doo xam ne lii drogue la. da nga yaakaar ni ay mbasin lañ yor wala ay yeneen marchandises. parce que parce que gis nañ fi lu nekk l'autre l'autre fois gis naa fii ci journal bi ñu wane ñoo koo xamante ne nii da ko def ci biiram def ko comme genre ku nekk en état. laxas ko ak ay kol wërale ko wërale ko wërale ko ba yow boo ko gisee da nga koy yërëm bu toogee nii la def nga yërëm ko foog ne kii ndekete yoo drogue bi la jël mu nekk ëmb. biir bi yëpp doroog la. <laughs> nañ fit nag. biir bi yëpp drogue la kon. imaginer yooyu xalaat nan la ko nit mën a amee. Mhm. Mhm. yaa da nga koy gis. te jigéen ñi ko def ah. moo def ko yaakaar ne kii sonn na waa mu ngi ci état affaire ndeke mu ngi transporter drogue. mu ngi mu ngi lor askan wi. Mhm. man ndegam ku jigéen kooku sax daanu tux. mais mais mais loolu yëpp ah suñu takk der yi ñoom ñu ngi bàyyi xel bu baax parce que enquête ñoom enquête yu garaaw la ñuy dañuy topp enquête dañuy dugg sa biir sa infiltrer. dañuy topp dañuy topp ba mu jeex des fois dinañ téye nit deux ans ñu ne dañ ko war a bàyyi deful dara. mais kooku app bi bu joté rek li ñuy lijjanti bis bu sottee bu ci bokul dañ koy libéré mu dem mm-hmm, mm-hmm. duñ ko fa mm-hmm. mais tant que li ñuy gëstu amuñu ci lu leen leer mais waruñu ko bàyyi mu dem mais nit boo deful même bu ñu la tegee benn place da nga war a ànd ak sa conscience tranquille parce que dalay leer ne li ñuy lijjanti bis bu sottee damay génn mooy noonu ah problème la ah nit ñi dañ see war a wax wax si yéen ñi conscience ah wax leen nan leen war a def comme comme ni nga wax rek war nañ leen a delloosi ñu gën a xam seen bopp surtout jigéen ñi am na yenn yoo xam ne jigéen du ci bopp parce que li góor mën a supporter jigéen mënu ko supporter gis nga kooku bu amul chance dëgg amul ku muy waxtaanal mën na xaru parce que coono bi muy daj sa activité yëpp yàqu yàlla bu mu am njaboot mm-hmm. njabootam dootuñu mën a génn ci dëkk bi déjà rey nga sa bopp rey nga sa njaboot. mais nag ay de drogue yàgg na fi ah gars yi ñu ngi koy dugalee ci réew mi di di si dox. waaw ku ci am na ñoo xam ne de ko yaakaar ñu ngi lay romb waa ah, suba ngoon guddeeg bëccëg. waaw ku ci yaakaar ne waa te moom leen yor seen poche wala moom leen denc. dama ne la ndax ah. mës ngaa gis kenn kuy def lu bon. Mm-hmm. ba nga juddoo ba ba ngay dee nga nekk ci lu bon. Mm-hmm. te ab te feeñoo amul boo ci nekkee da ngay yaakaar ne yow rek la. da yaakaar ni suñu borom tegu la ko. dafa gaaw may xaalis nag boo xoolee ah, tey jii mun nga xëy rek am benn takku cent million sur le champ. noo ko amee bon man nag xaw ma ci dara ah mais <laughs> loo xamante que ça soit clair ah, xaw ma ci dara. mais je sais que ni je que ni mun nga see am dans moins de deux jours cent millions yu taxaw. 100 millions yu taxaw yoo xam ne. boo ko yoree sa xel du daal. sa xel du dal. mais xaalis bu mën bi nga koy bi nga koy lijjanti. 100 yooyu bi nga koy lijjanti 2 jours yooyu. yow pour nga nelaw sax problème lay mm-hmm. doon. comme ça ndax saa boo tëddee. Mm-hmm. yaa ngi xalaat ne mën nañ ma fee fekk. Mm-hmm. foo xalaat yaa ngi fay rawalee. yaa ngi gas di suul yaa ngi yóbbu di dénkaane moo tax man duma ma téye téyal ma saak téyal ma mbuus bii ma dem ñëw du ma ko téye dañ la dañ ko fay teg tegal la fa drogue. Ah. ñu ñëw ne la ciix jàpp. fooy rëccee ngeen dañ ma kaa dénk kan moo lay gëm ci say tànk lañ ko fekk jàmp la di wala ci say loxo hmm. muus leen ngeen yeewu hmm. bu leen kenn dénk saak ngeen téye ko bu leen kenn dénk chassé ngeen téye ko hmm. mën nañ cee def drogue ñu dàq leen ñu rëcc ñëw ba ci yow dénk la ko dogal rek dogal fu muy ñëwee kenn xamul ndogal fu muy ñëw waaye ma ne jibi ndimbal na ca fekk loxoy borom du ma téye mbuus du ma téye saak <laughs> ñépp laa yemale dëkk bi kenn jaratula wóolu kenn kenn kenn parce que kenn xamatul koy wóolu ndegam jigéen moo am fitu dugg ci mbirum mm-hmm. drog mm-hmm. jigéen moo lay ñëw fekk nga toog mu ne soxna si doo ma téyal sama doom mm-hmm. ma dugg ci toilette bi génn nga téyal ko doomam mu gi mu daw bàyyee la doom ja comme ko doom la ñuy bàyyi wax ma la ak drog mais zone bi moom dafa nekk zone bu dangereuse zone Thiès mbuur Sandiara Serigne Dia. waaw dañoo yaakaar ne fi la ñuy rëcc. waaye ku ci yegg seeti ñu. gaa yi dañ teg ci gaal yi sax dañ koy teg ci gaal yi di ko yóbbu ay da loolu est-ce que xam nga loolu. ma hmm. ku ci yaakaar ne fii mooy rëccukaay bi yaa ngi dugg ci sa musiba. Hmm. ndax takki der yi ne fii dañoo mat sëkk te man a topp liggéey. ñu leen di rendre hommage euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo yor. war nañ leen a defal nag euh, journée spéciale boo xam ne. <laughs> am nañ journée de l'armée am nañ journée de dañ leen di delloo njukkal ah, am na journée de l'armée ñoom dañ leen di rendre hommage am nañ journée boo xamante ni ñoom loolu loolu war nañ ah. war nañ leen a ah, ah, delloo njukkal si war nañ leen a delloo mm. njukkal parce que ñu ngi def liggéey bu am solo mm. man toujours dama naan mention espécial ci ñoom mm. parce que toujours ñu ngi xool côté yi nga xamante ne nii danger ba fa lay ëppee dañ fay wàcc côté ba nga xamante ne nii agresseurs ya fa la ñuy nekkee ñu ngi fay wàcc tout à fait dañuy wàcc ci plage bi 22 heures ñu ngi wàcc ci plage bi. Mm. du ñu nelaw du ñu nelaw ba 7 heures du matin. 8 mm. heures du matin. donc ñooñu ñu ngi def liggéey bu am solo parce que boo xoolee par rapport ak bu njëkk wàññeeku na bu baax agression agression yi nga doon dégg yooyu yëpp wàññeeku na. parce que ñu ngi def seen liggéey. mais mais mais mais Thiès dégg na agression yi fa la tëllee tëllee sa dëkk boobu noonu gars dañuy def. mais dañuy wax rek dañuy wax rek. <laughs> Ah. dañuy wax parce mm. ji bi dëkk boo fa dëkkee doo fa sàcc mm-hmm. Mm. boo fa dëkkee mm. souvent doo fa sàcc ñii ñëw di fa sàcc duñ fa dëkk mm-hmm. baax na yaa wax loolu de mais gars yi ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay déglu ñu ngi lay gis ñu ngi lay seetaan ñu may seetaan xam nañ li may wax bu baax mm-hmm. te defe naa jamono ji xaaj bi yépp ut nañu liggéey mm-hmm. parce que da ngay gis ñoo xamante ne nii jibi dañuy gàddu seeni saak def ci shampoing def frotté def diw def ay savon di ay góor ñoo xam ne dalay leer nit ñi fu ñu taxaw bu ñu bëggee liggéey dinañ ko góor góor yi wër nag naa la soxna si amoo foofu 100 francs. amoo foofu 100 francs moom bu ma la bu ma la mënee mbég dama lay mbég. <laughs> gars yi nga xam ne nii dañuy mbubboo benn affaire yor ñëw màjjaal fii def lii ay góor yoo xamante ni. góor yi gis nga ah. gis nga ji bi mm-hmm. nit boo nanguwul liggéey. Mm-hmm. lu ne di nga ci dugg ñi leen di sarax rek ñoo ko def nga yor ñaari tànk. Mm-hmm. yor ñaari loxo say bët dara jiw ci. nga yor sa doole ju bari entraîné ba ceene mais lan moo la tëree liggéey. vraiment dugg si lan moo la tëree liggéey. Mm. yow ki kiy gaare oto ngay dem ne ko may ma 200 ma jënd lu ma lekk. Mm. may ma 100 francs ma jënd ndox. pourtant sa moroomu góor la démb rek daal nañu man ak Zal ñu ànd euh, dem ba ci benn instant am benn xale bu góor jugee fee ñëw ne dafa manqué paas xaw ma lan Zal ne ma jox ko ma ne ko non du ma ko jox ñu nekk foofu di kaf ba booy bi dem Zal boo ko joxoon dañ lay repérer dañuy dañuy ànd groupe dañ lay xàmmee ànd groupe dem taxaw xaar la ci yoon ba nga yegg si foofu noonu ñu jàpp la dañ dañuy yor ordonnance boo mm-hmm. xamante ne mm-hmm. ordinance bi 92 lay doon mm-hmm. duñ ci xàmmee jànjak joon <laughs> man boo ma tàllalee ordonnance dama koy xool. Mm-hmm. man mm-hmm. dama koy xool damay xool date bi. dëgg loolu yëpp suba bu ñu dajawaatee nga jox at ma même ordonnance ma ne la xanaa kañ ngay faju. kuy jël di jëfandikoo produit yooyu drogue ak yooyu da lay conduire si nuisible doo am. temps wu liggéey dara nga dul yor parce loo yor yaa ngi ko jënd. voilà doo am temps wu liggéey. da ngay yor benn 1000 francs mm-hmm. xiif bay lox da ngay préféré jëndee ko yàmbaa toog. jeex na. problème yi daal bari na fi ci réew mi Aïda léegi lan mooy solution bi la ba ngay solution bi nag euh, mooy mm-hmm. ñu xam ne fii lu am yàlla la mm-hmm. mooy maye dafa naqaree bàyyi nag mooy maye am dara mu lay may xaalis nga mooy maye rek di ko bàyyi suñu borom mm-hmm. mooy maye mooy xañe mu mel ne nga toog rek bàyyi waali sekk xam nga loo mënoo ji bi Sénégal gis nga àdduna loo bëggu taba rek ah, loo ah, bëggu taba ah, gis nga loo bëggu ba loo bëgg a ba kenn du la ko bàyyiloo yaay toog nga bàyyi ko toog nga jël sa décision bopp nga bàyyil sa bopp. Hmm. mais boo bëggee ñàkk jom ñàkk jom nekk ci sa deret ñu jalis la ko. Hmm. doo ko doo ko mën a ba. <laughs> ñëwal ci suy euh, xelaat solution. gis nga dañu war a xam ne. Hmm. lu bon amul njariñ. dëgg parce que ñoom pendant quatre ans ñu leen di rëbb dalay leer ne bañ ci nekkee di ko liggéey ak léegi ëpp na fukki at. parce que lo dem ba sa famille bokk ci say dom ak say jarbat yëpp nek ci liguey bi mm-hmm. donc kon xam nga ne liguey boobu mm-hmm. avancé na ñom société lañ yor mm-hmm. entreprise di former xalé ci jaayum drogue ñu nek ci di liguey nga yaakaaroon nañ ne aduna du dox ba ñu japp leen mooy boo naree feeñ mësuñu ko xalaat bo na naree feeñ rek da ngay feeñ moo tax ma mané la mësoo gis kuy def lu bon ba du dund ci ba dee te jàppuñu la amul doo ci jël ndax doo ci am ndam. dëgg la dëgg la mu toujours nañuy xalaat ne mm-hmm. ci loo nekk lu ne rek. Mm-hmm. bés dina ñëw suñu borom dalay weer te bu lay weer mm-hmm. sa xam-xam dalay réer. te dinañ la ko laaj ëllëg feneen tamit bu dul fii nekk. olof damay dégg nag mag ñi naan gàcce àdduna moo gën gàcce àllaaxira gàcce àllaaxira weesuwul sa nawle yépp toog ñépp toog. ñuy génnee sa lu bon di la ko tegal. comme film lay doon nee comme écran yi ñu teg lañ daan def lépp. di waaw léegi nag gàcce àdduna gënul loolu. mais gars yi faale wuñu damaa defee ne dañoo foog ne dee amul. <laughs> faale dañu foog ne suñu borom day wax noonu rek ne dee ñoom daal dee jàppewuñu ko dara. te kuy dund ku ne war ngaa sóoraale dee. vraiment boo yoree njaboot. Mm-hmm. yor famille. Mm-hmm. nga ne bëgg nga sa famille. Mm-hmm. bëgg nga sa njaboot war nga leen di bañ a teg gàcce. dëgg la dëgg la. parce que bañ leen ak bëgg leen a naqaral ci àdduna weesuwul nga def lu ne weñ ñu fekk la ci say digg moroom manote say loxo yàlla ñu yàlla musal ci manote <laughs> yàlla nañu yàlla musal ci damaa ragal police man <laughs> uh-huh. damaa ragal police ba nga xam ne pour ma demoon déposer carte d'identité sax <laughs> problème la parce que defe naa ne bu ma demee ñu denc ma ci giri kon yow doo am xaritu jaaykatu drogue doo am xaritu. Euh, dealer waaw man maa ragal kuy sol muy policier muy gendarme. Hmm. ba ci sapeur pompier sax man ñemewu ma leen <laughs> mu ngi noonu Aïda tey mu ñëw nag ci lu am solo muy euh, actualité la lu xew ci dëkk bi wàllum yàmba ñuy nag rendre hommage bu baax a baax homme de tenue yi xarit maa ngi koy nuyu Janjoli Sarr gendarme la ah Aïda am nga xaritu homme de tenue ah? ma xaritu amoo xaritu homme de tenue ma xaritu homme de tenue de. su ma koy nuyu mm. bu taxawee buntu gërëm di ci oto bi. Mm. ma di ko nuyu dama koy tàllal loxo rek avancé. ñemewoo ko ma ñemee oto bi du ma ñemewu ma oto bi. nuyu ko nag nuyu ko parce que. waaw policier maa ngi koy nuyu bu baax ak jabaram ak mm. famille yëpp ñoom Assane Mbuub loolu Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. ak commandant fii nii Mbour ah, ñoom tamit ñu ngi lay bu baax. Janjoli Sarr sama xarit gendarme la aéroport lay liggéeyee El Hadji Ndaw ah moom tamit GMI la GMI mooy gars yi policiers yooyu di civil tout le temps borom mbaxane yu xonq yi. gars yi doon man daal ji bi xam ma leen ñun diw xamee ma ci amee a rek moom du mos a sol toni El Hadji Ndaw sama booy la quoi maa ngi koy nuyu. sa booy <laughs> waaw maa ngi koy nuyu bu baax. Ah, a baax. moom tamit mu may xamal ne ma am na benn copain bu nekk euh, police centrale xaritam la la nee la moom tam ñu koy nuyu au passage euh, copain Zal boobu nekk police centrale bu Mbour ñu ngi lay nuyu yow tamit di leen jaajëfal ci liggéey bu rafet bi émission baa ngoog mbokk yi ñu jëloon nag tey waaw di di rendre hommage homme de tenue comme ni mu ko waxee sama gars yi ah yéen ñëpp maa ngi leen di jox cër euh, ñoom Jean ñoom euh, El Hadj Ndaw Dakar fële Diourbel la nekk sa temps yi booy boobu ñu ngi leen di jox cër di leen nuyu bu baax ay dañu tàggoo émission bi jeex na waaw ji bi tey nag damay daal di nuyu tonton boo xamante ne nii papa mën naa ne papa la mën naa ne tonton la mm-hmm. ci man mm-hmm. muy tonton lamin mm-hmm. lamin Sonko Sonko Manding comme niñ koy waxee sama soose bi chéri Tata Collé borom Suisse ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax di am contentement di am contentement bu baax ci tonton Lamine borom Suisse <laughs> uh-huh. maa ngi lay nuyu chéri Tata Collé waaw di nuyu aussi ki nga xamante ne nii jibi parce que man kooku bëgg gi ma bëgg sax daf ma dépassé chéri Katim borom Italie. Aïcha non Aïcha man mosuma gis. Hmm. billaay wallaay mosuma gis. mais daf ma bëgg tellement. Hmm. cousine am moo no njëkkeem moo tax mu xam ma. Hmm. nabu madame Fall. ma koy nuyu moom tamit au passage moo tax Aïcha xam ma Aïcha ci statut rek la ma doon gis. tàccu nabu rek. mais nabu dafa may transféré waat ay vocalam. mu naan kon kii man maa ko bëggal sama bopp. damay ñaan billaay damay ñaan yàlla. yàlla yóbbu ko ci tele yu kawe kawe kawe kawe. parce que man affaire bi dafay dem ba dépassé ma. Mm. ni buy wax ni kii ni ma ko bëggee dalay leer ne ci xolam lu koy tubbee. chéri Katim Touré borom Italie Aïcha chéri Maam Jaara mm. Aïcha loo ma bëgg benn rek. bëgg naa la ko fukk. maa la gën a bëgg. Mm. madame Touré chéri Katim je vous aime. mu ngi noonu <laughs> Aïda moom tamit euh, am na ay mbokk ah, parce que bu jógee nuyoo nuyoo nuyoo bu subaa mu ñëw indiwaat ñeneen yaakaar naa ne <laughs> bu yàggee boobu <laughs> bu yàggee ngeen fi équipe nationale xarit moom maa la wax lii nii am ay remplaçant am ay ay ay ba arbitre yeeg ñëpp na ci mbokk. mbokk yi li moo nekkoon seen émission Mbour TV matinale di gërëman tamit euh, sa mbokk yi fàtte ngeen ay ñoom Lamine Ndiaye États-Unis ñoom Ndeye Khady. waaw Ndeye Khady Ndeye Khady Lo Lamine Ndiaye États-Unis ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu sama fans yooyu. depuis ah, depuis États-Unis. waaw ngeen may dëggal invitation tamit nag ma yëg picc mi. <laughs> mu ngi noonu Omar Espagne maa ngi lay nuyu bu baax Omar Badiane sama sama cousin sama xarit la moom mu ngi ñuy suivre tout le temps ah, ci émission Mbour TV matinal Omar Badiane Ndeye ba chéri Ndeye maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu nag ñëpp ñu ñu doon seetaan seen émission Mbour TV matinal di leen jox di dajee bu subaa jàmm si beneen numéro jaajëf ciao ciao.